ñu ne waaw fii de ku fi moo lay sax ñu ne ah ñu ne waaw mu ngi nii moom mooy sang jigéen ñi mooy sangu góor yi loolu musiba la jigéen bu faatoo jigéen moo koy sang góor bu faatoo góor moo koy sang su fekkente ne góor dafa faat ay jigéen dong ñoo fi nekk dañ koy tiimal kenn du ko sang dégg ngeen jigéen ñi dañuy sol gant teg seen loxo tiimal ku góor gi su fekkee ku jigéen moo faatu ay jigéen ay góor doomu ñoo fi nekk amul jëkkër amul doom amul mag amul dara góor ñi bokkul ak ñoom dara dañ koy tiimal kenn mooy solo ay gants daal di koy tiimal tiim mooy nit ñuy tiimee pour Dieng ah waaw jigéen bu faatoo jëkkëram mun na ko sang jigéen bu faatoo jëkkëram mun na ko sang góor bu faatoo jabaram mun na ko sang doom mën na sang papa papa mën na sang doom ah nit mën na sang yaayam bu jigéen mun na sang yaayam waaye góor du sang yaayam ah góor du sang yaayam boo amee ay rakk yu jigéen ak ay mag yu jigéen nag mën nañu koo sang sang sërëm moo xam rakkal na bu jigéen wala mag bu jigéen déedéet bàyyi jigéen ñu sang mën nga leen orienté nag daf leen nii def leen nii def leen nii def leen nii waaye doo laal doo dugg ci biir doo laal ñoom ñoo koy jàppale moom kenn mun na wala mu woo yaay ndaw si wala mu woo magu ndaw si walla mu woo doomi ndaw si ñooy jàppale chaque jour l'islam dafa fiir gis nga jigéen bu dee buñ ko dugalee nii ci kees gi ba jël sër muur ci da gis rek ñu ne bismillah rek nga gis ku daw <laughs> jàpp ñi ko ñi mu araam ñoo ko war a laal même kees gi laa waxuma moom ci boppam de kees gi rek kees gi waaye fii suñu nekk léegi nag man xaritam laa man kii am laa man ma ah, papa man jëkkëram ñoo naan ah. <laughs> Sénégal moom ndeysaan yàlla na yàlla dañu laa tere nga laal kees gi doomam moo ko war a laal magam rakkam papaam nijaayam ñooñu ñoo war a kees gi nga ñu yegg ci armée ñooñu ñoo war a dugg ci pax bi ñooñu lañ ko war a jox même buñ koy suul dañu war a muur nii dara pour balaa gars yi di ko tiim mooy sër boobu ñu def noonu ñu dugal ko nii ba pare ba delloo ci suuf si doog a dindi waaye fii yàlla nu yàlla yi ay sentiment la ñuy demee ay dof-dofloog ay jéem man man ah fekk yooyu du diine l'islam dafa fiir même jigéen bu dee dafa ne bu ñu ko laal waxuma laa bi muy dund kon ñi jegante mën nañoo sangante waaye na fekk du góor jigéen jëkkër mën na sang jabar jabar mën na sang jëkkër papa mën na sang doom doom mën na sang papa waaye yaay mën na sang doomam bu jigéen sang doomam bu góor doom bu góor aussi du sang yaayam loolu leer na ci ñu naan